Sénégal en tant que marché ambulant en tant que doomu réew mi en tant que liggéeykat jafe-jafe bi fi nekk mooy li nga gis nii dama naan cent cinquante personnes ñoo nekkoon ci bayal bi di daan seen doole di xëy di yóbbu seen njaboot sàccuñ fenuñ dafuñ dara fii nag dañ fee toogoon toog bu ñu fi toogoon bàyyi ñu suñu bopp madame la maire may mun a jéem moo ñu fa bàyyi woon ba ñu fi bàyyee moo toog jëleaat ñi te jëlee gim ñu fi jëlee tegut fi lu war a a tax ñu jëlee ñu fi ndax boo xam ne lii du suqali Sénégal Sénégal lu koy suqali mooy ay liggéeykat te ñii ñëpp nekk sama ginnaaw ay liggéeykat lañ yoo xamante ni sax cuñ fenu dañuy daan doole barki démb laa génn prison rëbës fa mu gën a méttee chambre neuf lañ ma yóbboon maag samay morom seize personnes seize personnes lañ ñu fa yóbboon la palanweer la ñu jàpp ba ñëwee fii ramasse nañ bañ ramassé ba pare fekk fi ay nit ñoo xam ne teg nañ seen bagage ñi jàpp leen yóbbu leen génn bi dañuy ñëw nañ da ngeen di jóg bañ jógee nag ñi toog dina xaar ba xam ban salisoo la ñuy def bañ jógee dañoo ñëw raasile ay garab bañ raasile ay garab ñu ne leen lii war leen koo def ndax war leen naa jaay jaaykat di teg lii amoon nañu autorisation pour toog fi ndax kefe fi nekkoon muy bande jóg moo ñu fi tegoon ñi nekk fi may mun a jee ba mu ñëwee continuer ak ñun da toog président Macky Sall laay waxaat moom mu si kaw ndax moom moo jiite réew mi moom laay interpellé directement nag ay ndawam ay senesam ay gunéem yoo xam ne bëgguñoo jël géej gi bëgguñoo dem fenn fii lañ bëgg toog daan doole ñoom lañ yëkkati si bayaal bi li tax ma wax loolu mooy prison ba ma bàyyi ko barki Rasulaay ay nit ñu bëri ñoo xamante na dañu doon jël gaal gi ñu teeree ji foofu ñoo fa nekk sin morom la ñii ay ambulant man lañ ñii